salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbooloo mu tedd bi nuyu naa leen ku ci nekk ci turam ak santam jox la sa wàccuwaay di doore nuyu bi nag ak suñu jarbaat suñu doom maître Cheikh Niass dama bëgg déjà balaa may yeggale nuyoo yi ñaanal ko ndax man bàjjanam laa yal ko yàlla sàmm may ko kattan bu mu yeggalee liggéey bi ndax wane na fulla ak fayda tubaab moo ni la valeur n'attend point le nombre des années xale la woon bi waajuram demee mais fulla gi mu wane fayda gi mu wane accompagné nag par euh, tout dafa sedd xol moo tax ñu lay ñaanal ñas salaamaaleykum kilifa yi yéen ñëpp nuyu naa leen man nag li ma fi tax a ñëw tey moo di ne dafay bis bu rëy sama xarit sama am di jàmm sama confident nit ku baax nit koo xam ni ah waxtaan nañu ba suñu xol sedd dafa génnoon àddina ñu koy defal anniversaire loolu tax ma ñëw pour defal ko témoignage ndax kat euh, di Lamine nee naa sama xarit la woon d'abord émission yi mu daan def ay diineeg jamono wax ngeen ko dañ ma daan woo ne ma ñëwal bu ñëwee moom moo koy présider ñu waxtaan mu fonk lool nag xam-xam nekk juriste jànge université Al Azhar fële ca ker xam loolu nag li ñuy wax fiqh le droit musulman su ma intervenir ba mu xam ni jàng naa fiqh ak les écoles malikite hanbalite chaféite et dafa naan ma abon ah xëcc kii bi ne ma nañ ci waxtaan bëgg donc vraiment la réflexion poussée moo tax bi may déglu suñu jarbaat madame Niass dama ni Sidi lamin nitu xam la homme de culture la il a fouillé dans l'histoire et il est présent c'est un homme qui a marqué son époque mais qui nous marque encore et ça je crois que lu ñu war a di souligner la suñuy wax ci Sidi Lamine Niass alors Sidi Lamine Niass c'est vrai il y avait cet aspect euh, de connaissance et de culture mais sii di Lamine Niass li taxoon ma fonk ko dafa am lu ñu niroo woon dafa fonk nit dafa fonk askan te dafa bokk dafa fonk les valeurs c'était quelqu'un de très engagé engagé pas pour lui-même mais pour sa communauté, pour le peuple. Ça, c'est devenu rare, surtout chez nous, les politiciens. En général, ce n'est pas la communauté qui nous intéresse, mais c'est des intérêts purement individuels. Or, lui, il assurait l'équilibre en disant la communauté d'abord. Je n'ai pas eu tellement l'occasion de discuter avec lui de la troisième voie politique qui met les intérêts au-dessus de ses intérêts individuels de cette bipolarisation moom askan la xamoon askan a ko taxoon a jóg askan moo taxoon mu sonn mais yal na ko ko yàlla fay alors euh, je ne vais pas être longue mais simplement je voudrais dire que si quelqu'un il faut le dire qui était très regardant vis-à-vis des, des femmes du sexe féminin xam naa li mu xam alxuraanul karim moo tax mu ci daan sukkandiku pour wax jigéen ay valeur te loolu waxtaan nañ ci du benn du ñaar dafa daan wax ak yelleefu jigéen ak seeni wareef mariage doomam bi ma mujj fekke mu teniroon lool ci ma ñëw ci Pendant trois heures de temps, Madame Sommerseur Aydembroch était là-bas. Il nous a pris en haleine pour wax lan mooy àqu jigéen ak mooy lan mooy wareefu jigéen kon boobu moom sax dama yaakaar ni tey xam naa ni foofu rek euh, lay daanelee bu fi nekkoon tey jigéen mooy falu en 2024 dama cee am yaakaar bu baax a baax a baax bu fi nekkoon tey dafa naan nag jot na nag yàlla mën na ko dafa naan leen ah dafa jot dafa jot dafa jot jigéen jël le pouvoir surtout que cette médiation ce dialogue dont il parlait tant defe naa ni loolu bu ñu ko defee ci loxo jigéen yi Sénégal dina gën a neex waay jërëjëf. jërëjëf euh, euh, nañ ko essayer nañ ko jéem teg réew mi ci loxo